loolu moo mouvement bii di qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux Dara, mosquées, jumeaux, écoles, prisons, pouponnières et internats. donc yow may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alessek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51. ànd dimbalante baax na am na solo lool ci réew mi. alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla di julli si baale alayhi wa salaam maay présenté wu xam nga maay tudd Gora Niang gars yi gën ma xam si alliance Gora Mbaxal dëkk fii si Cambérène di président ASC Kawsara xam nga di représenté en tant que jeune quoi lépp lu activité lu jeune di def maa ngi si biir xam nga di lu initiative bi nga xam ni. mom la wa leer gi def. ànd seeg Nescafé di ka rafelu parce que cambrien li rek lañ xam. lu bax lañ xam. ñun parce que ñun xamunu lu ñaaw xamunu xiro xamunu ngaayo ku ben ku kenn ay ñepp ay kon bu ñëw fi andi suñu participation dañ koy rafetlu di leen gëreum di leen ñaanal di leen wax ni lu toll ni weeru koor benn tàndarma jël rek jox nit am nga ci ay yool yool waxuma la gën jël initiative bu toll ni jël ay ndog yu bari def ko sun heures trois jours ngeen def ko kon yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay te di ngeen am fay xam nga di rafetlu nag initiative parce que sama xol dafa fees barke Seydina li moom xeeb nañ li gën a rafet rek mooy geste bi uh-huh. te ñun ñuy wane ni lu Cambérène ay rek ñun ñu si muy politique di sariya di diine di lépp uh-huh. lu waaye ay surtout ma espoir man espoir dama si gën taxaw parce que uh-huh. insister parce que jeune Cambérène nekk fi dana may talent am na ku leen jàppale kon dëkk bi defaat ko si biir dëkk bi kon yow gëm nga sa dëkk xam nga li nga nekk ni yàlla si yàlla jàppale ñun foo ñu woo ñu ñëwee xam nga man jànk nag gërëm ay autorités yi nga xam ne ñu ngi seen ginnaaw yaa ngi dégg ku mel ni Lat Diop danga koy gërëm bu baax parce que man mooy sama kilifa mooy sama lépp fu ma dem moo ma lu ma ko wax daf may taxaw jot kon Lat Diop maa ngi koy gërëm xam nga amuñu fayam di ko jàpp di ñaanal nag autorité nekk Cambérène ak fi ñu nekk fii yëpp gërëm na leen bu baax initiative bi dafa rafet xam nga rafet bu baax di gërëm Lat Diop amuñu fayam quoi merci xam nga mention spéciale à vous quoi rafet na merci waaw ndaw tamit xam nga grand bu grand bu actif la quoi gis nañ euh, tournant li gis nañ sa taxawaay barki Demba Ndiaye ñu ngi réunion si wàllu euh, zone bi mais gis nañ dégg nañ fa sa taxawaay mais yow bu leen ko mais ñun yëg nañ sa taxawaay bi nga taxaw wax na nañ Moussa Mbengue pour mu woo la parce que dina jaar si deef parce que gars yi ñu ngi taxawal zone Cambérène ODCAV barke alxuraanu karim sàng 18 heures lan ma woo di ma wax ni samedi dina leen woo bii di ñëw kon ñu leen woo di leen wax ni intégré leen parce que ñun ñu ngi taxawal zone bi ñu ngi ñëw te lii na doy nañu leer yi moom xam nga Kaysoor a bokk mais leer gi yàlla na ñëw rek jël coupe bi quoi pour mu neex xam nga parce que lii dafa neex initiative bu neex la merci waay. waaw merci Gora bon ñu ngi lay kon kontaan ci yow bu baax a baax Gora di kontaan sa déplacement bi nga def. ñëw fii ci ASC Leer gi mm-hmm. indi sa contribution mm-hmm. donc franchement kontaan nañ ci trop trop ah, bu mag yàgg nañ la dégg moom war a ba mu ne ma góor ñëw ma ne ah góor moom bu ñëwee wax dëgg yàlla lu rafet lay doon waaw kontaan nañ ci yow bu baax a baax di ñaanal aussi sa ASC bi mooy ASC Kawsara mm-hmm. bon fi nga bëgg a jëm aussi yal na leen fa yàlla yóbbu waaw comme ni nga ko waxee rek Cambérène moom benn bopp la waaw te Chaka aussi yow comme ni nga ko waxee Chaka Chaka moom wax dëgg yàlla yàgg na def lu mel ni hors secteur waaw. parce que boo demee jàmm gën foofu gën a daf mel ni foofu la gën a xamee Chaka waaw kon ñoom mooy euh, kii mbër mooy mu gën sax cité mm-hmm. waaw parce que mouvement yu bëri foofu da nga ci gis Chaka mm-hmm. donc euh, bu jëlee lu mel noonu indi ko ci koñ bi ñun dañ koy rafetlu indi ko sax pas koñ bi mais indi ko Cambérène mm-hmm. bon en plus euh, lu mel ni defoon na ko encore ci école yi moo ko fi indi woon ba ñuy nekk ci école yi peinture rek defar école moom rafet à cause de lii donc ñu ngi kontaan ci moom it bu baax di ko ñaan aussi gudd fan ak wër di ko ñaan lépp li nga xam am bërëb boo xam ne am na ko ci Cambérène yàlla na ko yàlla defal di nuyu aussi samay élément yi nga xamante ñooy ASC Leer gi ñoom taxawaay bi rafet na kontaan ni seen taxawaay wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na lool lool lool lool lool wax dëgg yàlla rafet nañ ko bu baax a baax ak seen passif mm-hmm. merci Gora encore une fois ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sant bu baax di leen ziar donc di am contentement bu baax a baax a baax parce que aussi tamit des fois xewle nit ñi wuyu si la. Mhm. et lu rafet lay doon et lu sedd xol lay doon. loolu moom je pense kenn du ko présenté. dama ne Cambérène mais kenn du présenté Sénégal. parce que ko xamul sax dégg nga ko. parce que si ay activité nga koy déggee politique ak activité de développement. Mhm. tey jii bu ñu koy gisee nii tey jii boo génnee Cambérène nañ ko gën a respecté sax Cambérène. parce que nit moom da gis que nit boo bëggee xam lan mooy dooleem. góor si biti dañu xam moom mooy kan guerrier la am na fit am na jom te bëgg na dëkkam manifestation yi passé moo taxaw ne Cambérène kenn du ko taal xam nga loolu yombul donc loolu bëgg Cambérène moo tax du politique mais bëgg Cambérène parce que aussi fi nga dëkk nit aussi tamit nga sàmm ko day am solo trop donc ñu ngi lay encouragé bu baax si geste bi nga def génnee na xaalisam joxe génnee na euh, li nga xam te moom mooy produit joxe donc loolu dañ koy gërëm bu baax di ko ci sant et puis di la encouragé si di yàlla subhaanahu wa taala li nga def nii déwén yàlla nga def lu ëpp lu ko raw mais jaa ngeen def ñu ngi leen ziar di leen bëgg bu baax a baax